ministre de l'économie Ousmane ko wax ba pare mu jël parole daan ni lii yëpp ñu wax fii du yàq dara ci notation Sénégal <laughs> loolu mais mu ne loolu aveu la. c'est un économiste. de rang ma ne arrête ça. ma ne c'est un économiste arrête ça. arrête ça yooyu c'est du pipeau. arrête ça c'est pas du pipeau la bi mu fi ñëwee lu fi xew nit ñaa ngi bëgg a dee nga naan nañ yooyu waay. il faut arrêter mais, arrêtons, arrêtons mais ça. économique planification la propagande waa ji il est ministre de l'économie depuis six mois nit ñaa ngi bëgg a dem laaxira il faut arrêter ça arrêtons ça yooyu dafa yomb quoi économie loolu la fi def mais si, économie si, planification la ñu def la ñu defal la FMI defal la rapport boo xam ne mosul am ci réew nga ñuy wax di ñuy wax di làkk ay français yu rëy nit ñi di bëgg a dee boo continuer sa français yi bala ngaa kii nit ñi dem sil xafaa ñu rob leen ba pare mais après sa économie lu suñu yoon il faut arrêter ça nit ñi nañu bàyyi yooyu xam nga il faut arrêter ça donc le fait que moom mu éprouver nécessité dem ba yëg ni dafa war a expliquer après Ousmane Sonko di affaire yi ndodd yi du yàqu moo lay wax di y problème